mani ma ne war naa cee bi. mbër boo leen joxe yëre ko sol. bañ a sol man dama mbëree yow. boobu bu la ñëw rek ko sol. barke alxuraan. sant yàlla yaakaar nag. waaw ñu ngi am baax xam naa lu yàgg dara. incha allah rabi ñu ngi baax. waaw ñu ngi koy dox nag def ci kor rek. xam naa waaw xam naa. jàmm gën pikin. en tout cas da ngay duggaat ci lébu yi nga duggoon. en tout cas daal ci banlieue bi la dëkk. ci banlieue. waaw. Oh. waaw ñu ngi ñaan yàlla mu sotti rek yàlla suturaal ñu may ñu ndam. am na coow. waaw am na coow bu a baax. lépp lay def day xeex day bëree. waa ji mën na bëri. waaw combat tey ngay kay moom. am na defet. ah. am na defet. waaw am na defet waaw. defet yi bëri na wala dafa néew. non defet ñaar. <laughs> non loolu nag xam nga mais am na defet am na victoire. Ah. waaw parce que dama damaa jëlee Ahmed Deme mu ne yow bokk nga ci xale yi mu bëgg a may sens. bëreeg ñoom boo ko déggee lan nga koy wax. waaw yooyu ñu dañuy sant yàlla rek xam nga ñun defuñu fi lu ñu di laajee. ñoo ñoom amaana tey jii ñoom ñoo ñu jiitu si làmb kon bu ñu la ñuy bëreel wala kii la ñuy bëreel peut-être nag mais làmb xam nga dafa taxawul am ñoo xamante ni promoteur mooy tëgg làmb comprendre ñoom ñooy d'accord làmb taxawul man nekkuma bugul benn mbër bu ñu d'accord ni kii laay bëreel rek kooku laay bëreel mais nekkuñu si kenn ndax amaana tey laaj yëpp ñoom ñoo ñu jiitu si làmb kon tey jii nii loolu loolu pour man lolu sant yàlla kese moo ñu si war mais du dara amuñu pour ne kii la ñuy wala kii duñ laa bëre ak Ahmed Deme non déggoo amuñu pour tànn kenn ku ñuy bëreel mais képp koo xamante ni waxtaan nañ ak suñu staff bu ñu d'accord ñun pare mais nag bu ma sañoon sama grand guy gi may ma sens guy gi benn bi bu écrédil moo faram. waaw yabee guy gi. non du yab damay ñaan sens. xam guy gi damay ñaan sens war a may waaw damay ñaan chance xam nga ñoom bañ ci tolloo dañ leen may chance kon nañ ñu may chance ñu bëri rek lamb la sant waaw mais loolu du dara loolu du lamb la rek lamb ak looloo ànd lamb ak looloo ànd en ñun moom la ñuy taalal loxo bu mu may ñu chance kan ngay ñaanaat chance waaw non guy gi daal bu ñu may guy gi daal fi ñu daal man moom a gën guy gi point waaw guy gi waaw géej waay bu dee géej waay moom guy gi rek laa fay ñaan chance wax dëgg yàlla waaw waaw guy gi moom keneen ku ñëw mooy loolu ndax nekkuñu fi bëri benn mbër nag hmm. waaw mais dañ koy ñaan chance rek mu may ñu chance ñu bëri waaw jaajëf bàyyi